ko fa ci sëñ Fallu yeggoon kenn mos fa wax ne sunu waa ji la ñëpp di wër noonu doo nga ko am wasalaam nga xam ne la woon joo xam ne ci daje asalaamaaleykum du gudd yàgg la wax ñu ne teg mu ne sunu ji moom la ñëpp di wër noonu doo nga ko am wasalaam kii nga am kenn amu ko kii nga am ñeet kenn amu ko kenn amu ko sëñ bi nee sëñ Tuubaa kenn amu ko kon nag ñu sant bu baax sëñ Tuubaa kenn amu ko mm. ne dul ñun ñëpp am mm. mm. man de yaakaaruma lan lu sëñ Tuubaa mii rek kii ci barag bi rek keroog ba ko Mamadou Diané ki la def ministre défense mu ne ko de du défense défense day ngi ci baraag bi loolu la ko wax keroog ba ak sengor dana ku ci jëkk tudd lu géeb seigne Touba bi rek ma ak yow man seigne Touba rek la Lamine Gueye dik mu ganale ko ba ngan nga mu jox alaaji ma yoro faal fanweeri junni ne ko joxal mako ne ko ci loolu muy wër may lamine yewte ci posam ne ko bu ne ko dama ànd ak yuusu mbargaan ak aadama loo waaw na leen yewi ñu teg ci ay bi sangor dikk mu ñëw toog dañu añee bay war a mu génne waat loolu jox ko ne ko yotal ma sangor sangor xool amalo bi ne ko lii lu mu mu ne ko sëñ bi la ko jox la koo dimbalee mu ne ko baax ba muy tàggu sëñ bi mu génne amalo bi ne ko sëriñ bi teraanga di ko dellu waaye nag lii defal ma ko ci seen liggéey jumaa ji te bu ma yi dinaa leen ci jàppale sëñ bi ne ko indi sa loxo man ànd na ma ak yow man liggéey bi ku ko tudd rek ànd na ma ak yow léegi ko it mosu ñor nag lu dul liggéey bi bi soxlawul dara bëggul dara liggéey bi rek ko ñor nee na woon liggéey bi ak dëkkam bi ak bisam bi yett yi rek a ma ñor ndax yooyu la ko sëñ Tuubaa dénkoon jumaa ji noppee tam dugg ci biir barabu sëñ bi di ko wër da ca bokk waxi wolof jum doon wax moom sëñ Fallu da doon wër barab bi naan ko Mbàkke fii lañ toll tollale la fi buñ ko weesoo weesale ko ndax loo jërut amut loolu day day wone ak bëggam sëriñ Tuubaa ndax loolu loolu bokk na ci li mu doon wëree barab bi lu ko lu ko waaye masa naqi ci sëñ Tuubaa mu nangu na ko li ngay wax du dëgg waaye tudd nga ci sëñ Tuubaa rek la nga wax da koy nangu ndax day am day xam ay na xam di ca tàbbi aswaay dafa wut am imprimerie dem ba desi ci téeméeri junni dikk ci moom bind ko leetar ne ko maa ngi lay nuyu di la sant te di la yaakaar te sama soxla si mennum yow laa ci yaakaar mennum yow laa yaakaar ci ne boo ko amee su ma la ko waxee danga ko faj damaa am soxla si téeméeri junni ndax damay defu imprimerie biñ dikkee di naan si attaay ci suba gi sëñ bi wane lettre bi ñu ne ñoom daal ñu tàmbali waxtaan ñoom daal dañuy dégg lii nangam ak nangam sëñ bi ne déedéet danaa ko jox de waa jii de du ma ëpp fit xanaa da ngeen déggu li wax yow rek laa yaakaar ci ne am nga ko yow rek laa yaakaar ci ne am nga xol bu ko mën a joxe te ma am ko te am xol boobu dama koy jox kat waaw daal di wëlbatiku daal ko koy jox nga xam ne dama ko ne yow rek ci yow laa gis a koy xamee na xam di ca tab bi waaw doo jéggi sa menn yeer suñ fa lu jéggi menn yeeram xam nañ na xam it nangu cee tab bi lu sëñ Tuubaa mas a bëgg Serigne Fallou nga ci daawul def dara lu Serigne Touba lu Serigne Touba santaane ak taalibe mu fonk Serigne Touba mas naa wax fii ci kër ci këram gi Serigne Aliou Ndiaye la ko waxoon boobu dafa julli ba sëlmal daan na ko boo gisee duma fonk dara borom baraag bee tax daan na ko fii ba makk bu téere yi lakkoon ci jamono ñett ko mën a sot yeesalaat sëñ mut dem sëñ mut buusa ca Gede muy bàyyi sëñ maam buusa ak sëñ mut dem ca njaarem ak nun ñuy toog waaye nun jaay na lépp jënde ko borom baraag xam ne kon wanee na ne bu dee xam-xam moo fi raw waaye jaay na ko jënde ko Cheikhul Khadim mooy li ko gënaloon ci lépp lu mënoon a doon ñaari doomi soxna yi ñëwoon kenn ko ñu jóge fi barab ne ñun kat dañoo gént bi ko ne daa gént sëñ kii ne fi ki ne fe ñu gént ne na ku yéen na nga dem ci sëñ Fallu mu jox la nàngam kenn ku nekk mooñ ji la mu waxoon jox la ma bañ bañ jóg dem mën leen xee ñu ges mën leen gis leen kenn kat kon danaa xam ay naxam ba na fi na ko cataab lépp mooy bàyyee gum ba bàyyee bopp sëñ Tuubaa jox ko ko jox léppam man nii di wax ak yow de jaar naa ceeg moom ay yoon ndax xëyee naa daar musi dikk ne damaa soxla ñetti junni ñoo dikkee ma toog ba ñu woote ndékki li ma ñëw ñu indi ndékki li ma bañ a lekk mu xëy yaataay yi ma bañ a naan mu ne ma topp si lu mu doon mu ne ko damaa gént ci sëñ tuba bi mu ne ma boo demee ci sëñ Fallu na la jox ñetti junni mu daal di lam poos bi daal di génne ñetti junni jox ma sëñ Ousmane rahmatullahi alayhi ne ko ah yow de bu subaa ñëpp danañu gént mu ne ko Ousmane yow mii laay tontu. dafa am soo xam ne danga maanaam moom nga jëkk am ci taalibe moom nga jëkk def lii moom nga jëkk def laa te dafa tumu ranke waa kër ñu tumu ranke te daal sonn na te ba mu ànd yow dama lay wax nag bis bisu tey jii la tax aswaay daa jóge njaarim dikk ne ma sëñ Tuubaa nee nga jox ma faxay pepp ma woo ko mu ñëw ni ma ak ah, kii di gisul sëñ Tuubaa daal di yàq sam xel ñu ne tuma bàyyi waa ji te kii yàq na sam xel ma téye ko ñetti fan dem njaarim naka ma jox sëñ bi loxo rek mu ne baa kama la boyon jox ko ko faxaja man naka nakal sëñ bi bayyi sama loxo dem ma tok fa ba sëñ bi julli ji takusan ba dikki fekkaat ma fa ne ma kaay dellu ëllëg luñ la naxa ci man nang ko nangu te xamne ne kooku neena bama na ma fekk fi ñu jox ma fi mbam ma jox ko faxay pepp ji ak mbam ne ko ci mbam mi demal ne kooku ne yow gennal sama kër demal sa bop mu ne ma lee tax بمرفياتي